dégg ñu mën a continuer. asalaamaaleykum waa Médina ñu ngi leen di nuyu di defe naa kàddu gi yàgg ma defe naa kàddu gi yàgg parce tey mooy dernier jour de campagne mu wax Médina lu ma waxul woon ci campagne bi. te gëm naa ni yéen ñëpp suivre ngeen campagne bi depuis premier jour bi ba léegi étape par étape kon dañuy féliciter les responsables de Médina yéen ñëpp mooy Ousseynou euh, Ly di Demba Dioum ak mboolem seen responsable communaux yi ñu leen di féliciter seen liggéey bi nga xam ne feeñ na ci résultat yi ñu am depuis au moins les trois dernières élections waaye mun naa sax depuis beaucoup plus longtemps tey nag mooy dernier jour campagne commencé nañu Médina war a def Wakam Ngor Yoff waaye loolu yàlla rek ku ko mën parce que naa gars yi yëpp nag gars yi bëri wax yëpp nekkoon ci rajo yi di wax fi mu ne nii seen i bal jeex na depuis trois ou quatre jours. campagne tuñu parce que dañoo xoox boole koog xool nañu situation bi ni mu demee seen yaakaar xaw a néew lool kon li ma ne yàlla rek ko war nañoo def ñeenti commune bu Dakar dem tëjee campagne bi tey lu mu guddi guddi fële ca Bignona à plus de 400 kon xam ngeen ni waruñoo mën a yàgg fenn. kàddu gi benn la jëf lu mu rafet rafet rafet la ca gën a am solo mooy mujjantal ba da ngay jeexale ëpp solo campagne bi rafet na lool vous avez été tous formidables man dama daan nekk ci àll ba di gis image campagne Médina ma ne Médina mokk na ba noppi dina leer ba leer année le résultat sera au nag mais nag bu ñu xeeb mbir mi même bu desee même su dee deux heures moo des sax mottali leen campagne ba mat sëkk mais surtout tey fu leen campagne fekk à minuit arrêté leen campagne bi parce que ñun on est des républicains te yoon moo ne campagne bi tey lay jeex à minuit suba. da ngeen noppalu génne carte d'identité yi teg ko en lieu sûr dimanche à sept heures du matin da ngeen des dell ci bureau de vote yi bu ngeen jaayee nag nii fañ leen jaarale woon 2022 jaarale leen foofu mars 2024 ku ko raw lañ leen di jaarale bu soobee yàlla kon c'est pas encore c'est pas ah, encore trop tard pour que ñu jëlee ko woon dem jëli ko parce que liy defar réew loxo ñëpp a ciy am na koo xam ne bi génn ci mbedd mi génn na waaye am na koo xam ne mënu loon génn moo xam wéru moo xam mag la moo xam moo xam am na koo xam ne bu ñu nee joxe leen mu lam poosam joxe mu am ko mënul parce que yàlla mayu ko waaye am na loo xam ne ñëpp mën nañ ko nag mooy fexe ba dem vote ji loolu moom ñëpp mën nañ ko kon bu ci kenn xeeb ko te man jàpp naa ni mooy ñu ëpp solo génne sax xaalis joxe pour ñu campagne baax na bu bëgg a faagagal projet bi nga génn taxaw baax na waaye lay def la différence dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yor sa carte vote bu jotee nga dem vote joxe jox président Bassirou Diomaye une majorité bu confortable ñu doxal réew mi nag gis li ñuy liggéey kon loolu mooy ndénkaane bésu tey bi programme Dakar wax nañ ko keroog ci meetingu pôle bi ma fële Diamniadio la ca des mooy ngeen jox ñu les moyens de travailler te moyens yooyu bi ci ëpp solo fi mu mooy assemblée nationale kon ñu leen di gërëm leen sant di yàlla yokk jàmm ci réew yàlla yokk doole ñi ñu dénk réew mi te jiital ci président Bassirou Diomaye Faye waaye yàlla jox ñu kattan goo xam ne te kattan googu weesuwul askan wi ànd ak ñun jàppale ñu ci li liggéey ba li jeunesse bi di xaar ci ñun jeunesse bi gisal ko boppam kon ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. mu nekkoon discours du président Ousmane Sonko fii si avenue Blaise Diagne bu Médina. ñu ànd ak caravane bi nee na nag euh, waxtu bëriwul parce que tey ji lu mu guddi guddi dina daw quatre cent et quelques pour dem tëjee li nga xam ne mooy campagne bi fële sa duwaanu euh, Bignona la war a demee foofu noonu moo tax duñ mun a yàgg fenn état bi dafa bëri tey dinañu dem fi nga xam ne mooy Wakaam waaye aussi daañu dem fi nga xam ne aussi mooy Yoof yéen a ngi gis noonu kon alors caravane bi jamono ji le président Ousmane Sonko ñu ngi noonu président Ousmane Sonko ici avenue Blaise Diagne dañu toll war a dem dinañu romb université Cheikh Anta caravane bi en tout cas mu ngi noonu nee na nag euh, bu ndaw ñi bàyyi dara même bu fekkee ne ay simili yu néew moo des bi nañ ko mottali pour finir en beauté de cette campagne gis ngeen Ousmane Sonko mu ngi noonu en direct jamono ji il fait 15 heures 37 minutes fii ci Médina avenue Blaise Diagne alors euh, gis noonu gis ngeen Médina la ñu toll jamono ji en tout cas ma ngi noonu ñu ngi continuer parce que des na si ay étapes yu bëri yoo xam ne kon foofu la ñu war a dem ndaw ñi ba tey ñu ngi bëri ànd ak ki nga xam ne mooy caravane bi gis ngeen cette forte mobilisation comme ni ngeen ko gisee gis ngeen noonu jeunesse baa ngi noonu ba léegi daal di ànd ak euh, ki nga xam ne mooy la président Ousmane Sonko ici avenue Blaise Diagne war romb ki nga xam ne mooy mairie bu Médina en mu ngi noonu gis ngeen cette forte mobilisation ba tey Ousmane Sonko oto bi moo nami ma daani fi la rek ma lan nga ñu mën a wax fii si Médina. lan nga ñu mën a wax fii si Médina. waaw Médina lu ma leen mën a wax mooy fii mooy Blaise Diagne te jege na mairie Médina waaw ñëw na ba foofu nag def fa discours am fii fees na dell Blaise Diagne marché bi ñëpp génn nañ macha allah rabbi waaw ah, te Médina bon ñoom dañoo nekk ay ay nitu dëgg nañ bañ a génn ñoom ñëpp mais ñëpp ñu ngi toog yor yor seen carte su vote jotee parce que ñaari vote yi passé yëpp euh, parti au pouvoir fi. ñaari vote gagné wuñ benn bureau de vote sax benn yu mujj yi ñaari yëpp yëpp ba benn bureau de vote bu bu kii gagné euh, nu mu nu mu euh, mu ngi noonu en tout cas ñu ànd ak di nga xam ne moom mooy euh, bi war dem. hôpital Abass euh, Ndao aussi daañu fa jàll maanaam dafa ne en tout cas ñu ngi noonu ñu ngi noonu romb fi nga xam ne mooy hôpital wala fi nga xam ne mooy mairie yéen a ngi gis noonu